soo sonnoon ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaa du ma di fàtt di ko waaw oui en ne na la mbokki ñëween démb ñu des ci basket bi dikk gunge événement la xam nga bu mag euh, basket bi ñu jóge nag ci vingt e championnat d'Afrique ca Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire dama xamul ndax euh, championnat d'Afrique bu Côte d'Ivoire dafa jig Sénégal wala sénégalais yi ñoo bëgg di dem Côte d'Ivoire euh, dëgg la une équipe Euh, même bu nekkul ci dëkkam léeg-léeg mën na xaw am tuuti profilu deuxième équipe à domicile Coupe d'Afrique des Nations bu nekkee ca Côte d'Ivoire Sénégal nekk fa Sénégal mën na niru la deuxième équipe à domicile d'ailleurs wañe feeñ na parce que bu Sénégal dee joué ak Côte d'Ivoire ci la daan bare euh, nit biir euh, salle bi loolu moo indi xëy na ñaar yoon yëpp dem nañ fa demi-finale autant en 85 qu'en 2013 et ma xool ñi nga xam ni leader la ñu woon ci équipe bi en 85 moom la xale yi di wax tey ji cadre ma ni kooku tey ji yelloo na ñu jagleel que euh, Coupe d'Afrique bi d'autant que nekk na champion d'Afrique di Moussa mbay nekk champion d'Afrique euh, et sous le maillot de l'équipe nationale et sous de la police Moussa ma bàyyi la nga nuyu ñi la nga gis ci maillot police ak maillot équipe nationale ñu soobu ci waxtaan jërëjëf Laye maa ngi lay sant bu baax baax gannaaw bi ma sante yàlla sant julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant waajur yi maa ngi lay sant bu baax a baax ndax yow moom euh, sportif yëpp dañ la yoreel la jërëjëf ndax yow wax dëgg si yàlla Euh, su doon yow mag ñi fàttali na leen fàttali na bu yàgg. <laughs> ndax Sénégal moom ancien moom bu la nee ancien rek ancien nga quoi waaw fàttali na la bu yàgg quoi. mais yow rek ngay toog di déglu reportage di dégg ngay tudd turu nit ñi di dégg di fàttali événement yoo xam ne ñun fekk woon nañ ko ñu si am mbégte lool lool lool wax dëgg si yàlla. donc maa ngi lay gërëm bu baax di la sant si invitation bi. di ñaan yàlla yàlla na ñu jàppale ba li fi wax rek mu nekk njëriñ quoi pour ñu ñëpp quoi. mu nekk playmaker bu mag a mag a dama dama championnat d'Afrique bi damay seetaan match yi di ko entrevoir parce que dañ daan damay damay seetaan ci bërki dem ñuy am problème yu nga xam ne moom daf ko daan làqarti deer daf ko daan làqarti parce que euh, ñi ñuy wax intérieur tey bu ñu amee problème ñoom ñu leen di libérer ci mouvement yi di proposer pivot yi ay solution alors bi may xool championnat d'Afrique bi ma ne mu Moussa lay indi bii émission parce que daf ma dama gis ci situation yu nga xam ne daf bi doon nga seetaan. waaw bu baax kay. seetaan nga match maa ngi leen di suivre bu baax a baax. mbaar souffrir loo comme man. parce que man ah. dama moom moom ñëppay souffrir moo xam nga surtout soo nekkee xam nga en général sooy dawal oto. yow mi toog si wetu oto bi soo dee chauffeur rek yaay gën souffrir sax kii dawal quoi. voilà voilà. donc da ngay xam déjà boy yi li ñuy daj. nga sentir euh, pression bi nekk si ñoom. nga xam ni euh, actuellement nii fi ñu nekk nii nekkatuñu sax presque. wax nga dëgg donc nag euh, seen jàmbaar ak seen seen fit. rek moo leen di del génn si yenn situation yi ko parce que dafay dafa metti ngay ñëw di jeu équipe nga mëne ko score. jékki-jékki mu dal sa kaw. mu dal sa kaw. en général loolu moom su équipe bi nekkoon équipe boo xam ne tactiquement ils sont bien préparés. Mhm. dégg nga am un jour technique bu posé boo xam ne mën na garder euh, stabilité euh, stratégie ni ñu ko waroon defee. waaw su moytuwul rek mën na indi ay euh, jafe-jafe pour pour pour pour équipe bi quoi. donc nag loolu la tax ñuy soxla meneur de jeu en général. wax nga dëgg sax wax na ko meneur bi ñu jógee Côte d'Ivoire. Mm. Côte d'Ivoire déjà ñu ngi foon en nga nekkoon fa meneur. ça moo tax 85 bi ñu dem demi-finale te Côte d'Ivoire éliminé. voilà moo tax bi ma leen gisee ma match Côte la may fàttali. si si bon mais mais nag kii yi du noonu benn parce que ba demi-finale la woon ñu war a demi-finale. donc euh, on a eu rencontré beaucoup de difficultés match boobu. donc euh, avec tout ce qui les comporte de. gi si ay coono tension yi pour nga dugg stade bi problème la woon li ma rappelle docteur Lamine Thiam moom mooy médecin bi mais dañ moom championnat bi presque police la ko fekk ndax ndax solo la xaftaan la sol ñu ni dugg waaw la ko waaw ku sol xaftaan <laughs> ñu ni dugg sëriñ la effectivement donc on a eu d'énormes on pour match boobu quoi mm-hmm. donc nag ba pare boy dugg si avec tension de am na benn moment arrêté na match bi ñuy xeex si kaw tribune ak ak donc nag loolu nag tension boobu ñu duggee si match bi nag moo joué si match bi ba nga xam ne pour ñu wàcce woon tension xale yi pour ñu kii c'était un peu difficile quoi donc moo tax bi ñu Côte d'Ivoire yóbboo yenn score yi dam na ba dab sax mais c'était un peu difficile quoi équipe boobu équipe police boobu équipe nationale boobu équipe bu baax la woon boo xam ne on avait beaucoup d'aspirants de de de prétendants pour jëloon titre boobu quoi voilà mais Euh, daje nga ak en finale en 80 80 à Rabat yaa ngi jëm. oui oui maa bu Rabat ba bi ñu d'Afrique. voilà waaw effectivement yaakaar nga woon Menarati. Euh, y avait Badji y avait euh, Mathieu Faye. waaw voilà nous étions les trois meneurs. les trois donc waaw. sans doute championnat d'Afrique. oui c'était le meilleur bon donc pas pas pour moi le meilleur donc man dama naan meilleur bi mooy Côte d'Ivoire. biñ def demi-finale biñ def demi-finale noonu. pourtant mais on je faisais partie presque des meilleurs joueurs du tournoi si si biir. ni ma ni foofu joué ma ko en en 80. waaw parce que 80 euh, parce que je faisais office de remplaçant. donc euh, ni ma joué bariwul quoi si si finale boobu. oui nga donc mais en Côte d'Ivoire foofu franchement defe naa mooy sama meilleure coupe d'Afrique. malheureusement malheureusement nag foofu la ñu perte. en demi-finale ko perte. dañ aussi. contre euh, contre Égypte Euh, Égypte wala RCA. RC RCA contre RCA. contre RCA contre RCA. non non RCA moo doon final la Côte d'Ivoire. ah oui oui ñu ne ñu ne que Égypte ñoo dem final la ñoo ko dem final ñëpp. gis nga les mêmes reviennent ah. Égypte euh, <laughs> voilà 83 aussi tamit c'était la même chose. voilà voilà 83 ñu ne Côte d'Ivoire ñu ne Angola ñoo def demi-finale. oui Égypte def demi-finale ak. Euh, voilà Côte d'Ivoire waaw Côte d'Ivoire. donc mais Moussa qu'est-ce qui a changé pourquoi léegi les Sénégalais. Hmm. ou ils jouent mal ou hmm. boo leen di seetaan da ngay souffrir. waaw mais parce que li changé mooy. peut-être que si préparation yi la aussi donc man du ma wax parce que je suis un peu à l'écart du basket. Hmm. peut-être que pour mën a xam exactement. ce qui se passe réellement lan la. mais je sais que par expérience peut-être que fii Sénégal on avait l'habitude de de mal préparer nos championnats d'Afrique là cette année nag daf si rawati est-ce que loolu base yi changé parce que bu njëkk base bi elle était locale. voilà de si. mais léegi plus de la moitié ci biti lay jóg. voilà li si ëpp sax moom laa la wax te fi ñuy jógee ay horizon di war ñi européens yi américains yi. voilà donc style de basket yi du benn. donc soo soo leen amee te amuloo temps de préparation bu day pour mën a recadrer waat tout ça. ku ne nga indi leen si système bi nga bëgg ñu jouer ko. dafay jouer si match yi. parce que dañuy toll moment boo xam ni. ku nekk da nga régulariser équipe bi dafay difficile quoi. gaañu Moussa Mbaye nga laa leen indi tey l' équipe du Sénégal euh, au début des années parce que lui a été déjà champion d' Afrique. Mm-hmm. en 1980. Mm-hmm. avec l' équipe mm-hmm. def aussi championnat du monde Jeux Olympiques yooyu ci def. oui Jeux olympiques à, euh, à Moscou. Moscou 80 voilà moo xam nga bon donc bi ñu gagné Coupe d' Afrique bi on faisait partie des représentants de l' Afrique. Jeux olympiques de Moscou euh, mais Moussa tu l' dit tout à l'heure mhm. tu es un peu écarté. du basket. Mhm. parce que ces générations à l'exception de mhm. Adidas 1. voilà ñu ci bari entraîneur pourquoi. waaw soo ko seetee. presque ancien basketteurs yi nga xam ni dañu am vocation sport di liggéey si sport bi. Mm-hmm. li si ëpp ñooy ñu nekk euh, kii ma ma saay tooñ ñu Omar waaw mu wax naa ma doo ñëw man que noo yéen ñun fi bàyyi. ñu nekk fii di basket di wut ay gloire. waaw yéen ngeen di basket wuti gloire ak xaalis. waaw yéen da ngay ñibbi si nag di lekk seen xaalis. oui am yooyu jot ñun doon war a toll fu ñu dem wuti xaalis bu ñu yóbbu kër ga. oui donc ñu ne yéen bokk ñu ay ambition. donc fi ñu toll nii actuellement nii xam nga basket bi dafa am nu mu demee noo xam ni Euh, bénévolat bi daf si ëpp. dafa ëpp waaw daf si ëpp te nag xam nga da ngay toll foo xam te ne nag bénévolat du du du taal cin gi. wax nga dëgg voilà donc foog nga dem lijjanti dépense foog nga dem lijjanti euh, liggéey. donc donc soo nekkee yore liggéey jàmbur nag doo doo ko mën a ti bàyyi di dem euh, di dem si terrain yi. Mm-hmm. te basket bi dafa la jël temps. ñan ñoo la international euh, Bisnel Diagne Bisnel Diagne moom kooku samay mënuma wax sax si moom si benn émission quoi. et puis dafa nekk nit koo xam ni daf ma marqué marqué basket bi. Bisnel Diagne Mbaye Guèye. Ah, dégg nga Mamadou Sow. Ibrahima Konaté.

mais euh, malheureusement championnat d'Afrique boobu. Uh-huh. à Dakar. waaw j'ai pas joué euh, le match. dama ci jëm si wala wa ah, dama ci jëm si woon parce que gis nga championnat d'Afrique bu Dakar bi. Mhm. Euh, on avait deux équipes Asfac Police. en match d'ouverture Asfa jël police. Sénégalais yu bëri mere waa Asfa parce que dañu bëggoon mu jël beneen équipe non sénégalaise. après laa yëg ni Moussa Mbengue est blessé. oui et que ASFA dañu bëgg jël police. voilà balaa Moussa di rétablir. rétablir pour pour ak tàggoog police am jàmm. voilà loolu la woon loolu la woon <laughs> malheureusement. xam nga ñàkk xam mooy loolu quoi parce que police boobu dañu dañu nekkoon équipe boo xam ni dañu moom individualité mënu fa mënu fa absenté équipe na nag nit ñuy seetaan naan Moussa Mbengue c'est le que c'est le cinquante pour cent de l'équipe xëy na su absenté dana am lu manqué si équipe bi wax nga dëgg mais booba sóoraale l'enfant ndax booba l'enfant aussi il est dans l'équipe soo fekk woon entraînement ni ñuy foofu nga war a xam ni donc ku dem rek mën na la sa morom mën na remplacer ça n'avait pas prévu ça yaakaaroon ni peut-être que man su ma fa nekkul du fait que de l'équipe mhm. donc ils vont passer sur la police comme ça. alors tu as ah. d'Afrique avec la police sans doute aussi ci souvenirs yu mag la surtout que. yéen ak ASFA boobu temps. voilà voilà ASFA xam nga boobu ñoo ngi soogay euh, commencé rivalité bi di commencé. ak ASFA ñu ngi commencé détrôner ASFA. parce que ñun bi ñuy ñëw fii ASFA moo doon régné je me rappelle sama premier match bi may joué sax police te ndax boobu dañ ma jëlee Saint-Louis man bi ma jëlee Saint-Louis ma ñëw fii moi je me pose des questions sax pourquoi ñu may indi fii police parce que dama ñëw fekk fa ay Nagari ay Badouba ay managers yoo xam ni. ma ne benn jour benn match rek ma toog lu yàgg chaque fois di toog si baa rek ma kaas quoi daan nag c' est pas la peine fekkee nag ma indi fii may ñëw fii du ma joué. je préfère ma ñibbiwaat sama dëkk. dellu saint kaas di jour boobu réunion kii regroupement nekkoon ma kaas kaas métti quoi. léegi ma baaba gisee benn suñu grand bu décédé na sax yal na yàlla yërëm daan moo sorox ni ma ni nga kaasa nii tey asfaalu Niger bu nga préparé yoo xam ni cinq rakaay daan la dugal parce que pour pour pour te xam na ne asfaal moom ndax der kuy joué moom rek waaw kuy joué asfaal rek tu passes der der moom du joué que moom contre lui moom ah. non da ngay machine pendant trois jours <laughs> donc fu nekk lay jaar comme jëna ko ndàmb fu ma ñëw nag yàlla def nag machine boobu nekk sama buntu xam naa bi ma ubbi quoi. Mmh. donc on a fait un grand match maag der police boobu. Mmh. match boobu presque on avait cent eh, match bi. match bi cent trois cent cinq. bu rythme bu neex boo xam ni. oui oui léegi nag fa laa nag commencé nag di liggéey si équipe bi. alors tu as été champion d'Afrique avec le Sénégal en 80 équipe nationale. avec la police en club au milieu des années 80 aussi. 80, 80, 83, 83, 84 comme ça. Qui a fait combien de demi-finales de Coupe d'Afrique Parce que ces demi-finales, il y a... Voilà, demi-finale, on a fait 3. 3 85 Abidjan. Ouais, 83 Égypte. Oui. Hein, euh, Nairobi. Hein? Parce que yéen seen jamono su ngeen final ñëw au moins demi-finale voilà. au moins demi-finale wala troisième place bi quoi. Nairobi moom on est Jeux africains on était deuxième. derrière l'Angola. bii la ñu gëj demi-finale. parce que gëjoon nañu demi-finale en. est-ce que c'est pas 97 bi ñu jëlee. voilà 90 voilà la ñu demi-finale. voilà alors recul bi yow da nga comprendre ci ni peut-être euh, on ne travaille pas assez. oui c'est surtout ça xam nga fii y a beaucoup de bonne volonté. techniciens yi manqué manqué wu ñu fi y' a beaucoup de techniciens beaucoup de d'anciens joueurs yoo xam ni peut-être xëy na am na nu leen doon utiliser ñu mën a jàngal xale yi tuuti basket quoi. Mhm. mais ay bénévoles ñoo nekk si si terrain yi. ñoo xam ne bonne volonté yoo xam tamit ñooñu il faut dañ am dañ leen ameel njukkal. Mhm. parce que ñun lu ñu waroon def ñoom ñoo ngi koy def. Mhm. même su fekkee ne dana am ay failles. ñun amuñu euh, droit di leen critiquer. oui oui dañ leen ameel njukkal sax parce que ñoo ñoo ngi ñuy jàppale en quelque sorte. mais nag problème bi mooy il faut que ñu ñu ñu commencé waat si base il faut que ñu commencé waat base base moom hmm. gis nga soo xoolee football bi hmm. euh, jàmbaar yu mel na jàmbaar yi xam nga yooyu ñu ngi commencé li jàmbaar def voilà en football yooyu déjà suñ koy euh, multiplier léegi su yàggee Sénégal dana am même booy yi bu ñu demee sax daanu am base bu baax boo xam ni bu ñu dellu si yow suñu ñëwee du soxloo ndax ñu fii équipe nationale da ngay ñëw ñu sélectionné la entraîneur bi au lieu mu defar cohésion tactique bi rek léegi daf lay jàngalaale en même temps di ay ay kon ñu essayer rek ci ay photo retracer carrière wu basket bu Moussa Mbengue mi di suñu invité tey jii ñuy jégalu nag ci qualité euh, image yi Moussa Mbengue gis ngeen ko fii dafa nekk roi du basket ànd ak Mame Maty Mbengue mook Mame Maty dañu bokk jamono d'ailleurs di ngeen ci rendre compte parce que mook Mame Maty am na feneen fu ñu dajee ci benn finale Euh, Moussa Mbeg sol ni euh, mbubu ak koppati bu weex bi ànd ak Mamati at mi Moussa mooy roi du basket sénégalais Mamati Mbeng di reine du basket sénégalais ñu dajawaat ñoom ñaar ci loo xamee ni yéen a ngi fàttaliku le premier soulier d'or sénégalais Cheikh Seck moo nekk nii ci digg bi costume bu ñuul ne papillon Cheikh Seck le meilleur gardien de but sénégalais de tous les temps gars yi nee na ñu moom la ci gauche Cheikh Seck di Moussa Mbeng ah suñu bi nekk ci plateau bi ci droitu Cheikh Seck di Mam Mati kon Cheikh Seck dafa nekk ci diggante euh, le roi du basket ak la reine du basket ñuy xëccoo nag. le soulier d'or de l'année c'est au début des années 1980 mu nekkoon final bu jafe gis ngeen assistance bi nii ci gannaaw ah, ña nga nekk hôtel Teranga ñi naan Moussa Mbengue la ñi naan màmmati Mbengue la ñi naan Cheikh Seck la gaa di ci débattre di ci werante di ci waxtaan ba finalement ñu jublu ci résultat bi nga xamee ni moo nekk ni